بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم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 أنزل من مقام الجمع والتنزيه قرآنا عربيا من غير ذي عوج وجعلها معجزة باقية على وجه كل زمان ساطعة البراهين والحجج والصلاة والسلام على من هو فاتح باب الحضرة في العلم والعين واليقين سيدنا محمد الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه المتخلقين بخلق القرآن ومن تبعهم بإحسان إلى آخر الزمان أما بعد بكي جنا بني سنتي برم سبحانه وتعالى جلتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نلاني دل سوى دلن نيو دلن زيار دلن بالحق يعني برم سبحانه وتعالى بولن يجغل دل سوى سنو تفسير رأي والإشاري تي السير مع القرآن إن شاء الله تعالى تنبغى تنبلي سورة البقرة دنيان يلا lepp lu ñu genn ci kaddu yalla yalla yàlla setal ko wetti ci shaytan ak bakkan te ñu koy wax ñu jëfandikoo ko ñu koy dégg nañ ko dégg ta jaahi muhammad sallallahu alayhi wasallam sallam dañuy tambalé ci suratul baqara muy sar bi nga xamanteni mo ñëkk mo jitu ci alquran mooy sar bi gëna gudd yit ci alquran tay mathalan bo ma ban sar mo gëna gudd ci alquran amna sar bu gëna gudd ci alquran am saar bu ci gën gàtt am aya bu gën gudd am aya bu gën gàtt am baat bu gën a gudd ci alquran tamit saar bi nga xam ne mooy bi gën a gudd ci alquran mooy saar bi ñuy jàng mooy suratul baqara saar bi ci gën gàtt mooy suratul kawthar di inna aataynaka alkawthar الآية بني خم موغن قد في القرآن موتي سار بي دي سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم كفاهم سورة البقرة تجي أخلو كايب <coughs> لا يبيغن قد في القرآن موي والضحى والضحى ولا والضحى أكوى الفجر بخول نياري آية يو يبوشنك من يطلق جرم نياري حرف موي جرم نياري لاتر نوي آية يغن قد في القرآن باب بيغا خامني مو غنا غودو تي القران مي كلمه ا آه، موي بيغا نا غودو تي القران موي فاسقيناكموه تي سوره الحجر فاسقيناكموه بو خول موغي تول تي فوكي حرف اك اك بن 11 حرف بو تي جوغي اي نيوم لا يستخلفنهم دال دي نيوم هكذا لكن نك بان حكمه مو نيوبا بروم سبحانه وتعالى تمبل سورة الفاتحة حرف يلير موي بسم الله الرحمن الرحيم فمن كو تفسير يوان كو خو لي لي لي فري مجيجة فر دال دي نيو تي سورة البقرة تمبل كو تي اي حرف يو خمن تني دكو ابرج نعم اي اي جنجلة وخمن دي نيب نيو كو منا كومبراندر لولا القران دون ني جانغال تي بير ناني و اخر متشابهات mutashabihat mooy baat xaraf yi nga baat yi nga xam ne dafa ñëw ci alquran te du ñëpp ñëw ko mën a dégg mooy yulanti noonu nag ñi ko yàlla xamal mooy ñi nga xam ne ñooy yonant yi ak ñi nga xam ne mooy moom la ñuy wax arrasixuna fil ilmi ñooy mayan mooy aarifuna billahi ñoom ñoom ñoom am na ci ñu ko ci yàlla di xamal subhanahu wa taala kon boo ñëwee ci suratul baqara moom mu ngi ko tàmbalee ci ay xaraf yoo xam ni حرف يو لنتلا ما يخبرني دكو أبرز دكو جنج ما ألف لام ميم دنيا تب دنيا تحرف نلا لو حكم بابو بكونا تي والأبا لو لصح دنيا يوتي مم سورة البقرة بتاي من بفدون صار بو خمني داي تقلة بكونا تي لي تخ يلا def ci jagle bi nga xamanteni mom la ci def muy muy boo xam ne moom ngay tàmbalee ubbi alquran nekk saar bi nga xam ne moo gën a gudd ci alquran bokk na ci moom saar bi dafa doon li nga xam ne dafa teqale ma dafa teqale ay at yu bari da cee daje ba noppi indi ay misaal boo jugee ci biir fekk ay yoo xam ne yàlla mu ngi koy jox waa bani israil ñi mujj ko jox tubaab yi ñi mujj ko jox ñeneen ñi xam ne ay jullit lañ yëpp yàlla dajale na ko ci ba ay lay ay lay ci biir saar bi bari na ci loolu bokku na ci nga xamne ne saar ëmb na ko motax ñen ñi diko tuddé tuddee fusaatul quran ana moy nandu fay foyu alquran mom mom suratul baqara bo démé ci ibn al arabi mom bo démé ci téré bo mu ñu ahkamul quran mom dafa wax ne dafa wax ni am na ñenn sax ci yenn kilifa yi borom xam-xam yi dañuy wax ne manam suratul baqara dafa dajale junni junni ci ay digal ay digle ak junni ci ay tere ak junni ci ay atte ak junni ci ay information ay xibaar nee na loolu moo tax mu naqari dégg moo tax Seydina euh, Abdullah ibn Omar tëju na lu tolloog huit ans di di di di def di raasa suratul baqara pour mën ko dégg huit ans juróom-ñetti at loolu xikma la yàlla def na ko ci nga jóge foofu daal di ñëw ci ban xikma moo tax suratul baqara ci boppam daal di ñëw bi mu ñëwee yii wàcc ay makka am ci aaya yi wàcc makka am ci yoo xamante ni dafa wàcc madinatul munawara wala moom alquran ci boppam alquran aaya yii wàcc makka yi wàcc madinatul munawara <clears throat> yii nga xamante ni dañoo wàcc guddi am na ci yoo xam ne bëccëg lañu wàcc am yoo xam ne bi ñuy ci yonent mu ngi fekk ñi tukki muy tukki am yoo xam ne dañuy wàcc ci moom mu ngi fekk mu ngi toog tukkiwul am yoo xam ne bi muy ñëw ci moom ci jamonoy tàngaay la am yoo xam ne bi muy ñëw ci moom ci jamonoy seddaay la yooyu yëpp dajale na ci alquran am na yoo xam ne bi ñuy ñëw tamit ñu ko fekk ci diggante guddi ak bëccëg ñëw na ci diggante boobu it am yoo xam ne bi muy ñëw ci kaw suuf la ko fekk aaya yooyu am aaya yoo xam ne bi ñuy wàcc ci kaw asamaan la ko fekk am aaya yoo xam ne fekk ko ci kaw suuf fekk ko ci ab mais mu ngi ko fekk ci xur ci souterrain maanaam fa la ko fekk aaya yi wàcc foofa ci moom am aaya yoo xam ne mu ngi wàcce ci moom diggante Màkka ak Madinatul Munawwara am aaya yoo xam ne mu ngi wàccee ci Arash ci isra isra wal miraaj mooy ba muy rañaani ca kaw asamaan ci juróom-ñaareelu asamaan yooyu aaya yooyu yëpp am na ci yoo xam ne yëpp daanaka dajaloo na ci biir suratul baqara tamit ba tey waaye dant yi ci ëpp sur eh, Madinatul Munawwara la ko fekk motax ñu jox ñu jagleel saar bi ne mu ngi wàcc madina buñ na suratul baqara madaniyatun buñ ne madaniyatun moy saar bi madina la wàcc buñ ne makkiyatun moy saar bi makka la wàcc legi nak saar bi dañuy xol ay yi ci ëpp fi mu fi mu féete rek bu dee côté Medina la ñu ñu daal di koy askanale madina bu dee ay ci ëpp côté Makka la féete la ko fekk ñu askanale ko Makka mais suratul baqara yi ci wàcc ci ëpp ci Medina la ko fekk moo tax ñu jagleel saar bi Medina waaye ay yi ci wàcc yi guddi la yi bëccëg yi te tàggaay yi seddaay yi jiggante yi Makka yi Medina yi diggante Makka ak Medina yi mu fekk ko asamaan yi mu fekk ci kaw suuf yi mu fekk ko ci xur yi mu fekk ko ci juróom-ñaareelu asamaan yëpp dajaneel daj dajoo na ci ci ci saar bi waaye loolu nag lan mooy na bi mooy borom bi subhanahu wa taala daf koo def pour lan pour pour teral place yooyu nga xam ne ñooy ñu occupé kawnu bi aaya bu ci nekk rek yàlla yonent bi bi aaya bi di wàcc fa ko fekk yàlla daf koo jaarale ci moom pour barkeel place booba ndax dafa mel ni place yooyu dañ doon revendiquer pour yonent bi sallallahu alayhi wa sallam teg tànkam foofu ñu barkeelu ci dëggoom maanaam mu teg fa tànk ba ñu xeeñcu ko ñu xeeñcu ñu xeeñcu te maanaam xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa moo tax ci jamono ju nekk boo xoolee lépp luy jamono li ëmb kaw na bi ci circonstance bu ne aaya wàcc na ci alquran yàlla wàccee ko ci moom ci yonent bi mu ne xikma boobu bokk na ci yàlla day wàcce aaya bi foofu pour barkeeloo barkeelal place boobu bu dee ci suuf la day barkeel suuf bu dee matalan mu fekk ko mbuur day barkeel waa mbuur bu fekkee ne da koo fekk ci géej gi hakada bu fekkee ne da koo fekk ci kaw gaal hakada bu dee da fekk muy nelaw hakada bu dee da ko fekk ci asamaan wala mu fekk ko ci xur wala diggante ñaari dëkk yëpp place yooyu yëpp yàlla da ko wàccee foofu foofu barkeel ko ndax place yooyu du ñu revendiquer pour suñu borom jaarale foofu yonent sallallahu alayhi wasallam mu jaar fa ñu barkeelu ci moom yàlla dogal yonent bi jaar fa mu wàcce waale aaya foofu ñu fekk ko ne kon loolu mooy xikma bi nga xamante ni moo ca nekk لول موتخ آه، القرآن ويكا بدون وحي النبي صلى الله عليه وسلم أنك لولاك لو لولاك لما خلقت الأفلاك منانكو منانكو بروان يو يالا دو بند بيتيوي لب لي دوخ تي اسمان يالا دو كو بند منان تي يالا موتخ يالا بند يو ييب نك وخ نيوم دانيي دانيو ادو ام شوق pour dajé ak yaronte sallallahu alayhi wasallam pour barkelu ci jëmmam léegi ñu ñëw ci tàmbali ma saar bi mooy alif laam miim mooy ñetti xaraf ñetti lettre alif laam miim nag ñi ëpp ci borom xam-xam yi nañ koy firé mooy allahu aalam bi muraadihi yàlla moo xam li mu ci namm ndax tu daf ko abrégé mu ngi mel ni ci français rek kuy jàng ñëw rek ne ne ne ne rek yam ci loolu moom bu ko kenn mënu xam ñu wax lan nga ne B décorté décorté ko comme kenn mënul comprendre ci lim bëgg a wax lan la da ngay nattale rek nag waaye ñi ko xamal it du ñu ŋaañ seen gémmeñ loolu ñu tudd léegi nag ñi nga xam ne ahlul ishara ak ahlu ra'i ñoom ñooy def seeni i tawilaat comme yu mel ni euh, maanaam consort léegi boo ne lan mooy xikma bi nga xam ni mooy ñëw ci alquran mooy li ma doon wax sànq ci fatiha wala ci alif lam mu tàmbale mu tàmbale suratul baqara alif lam بنوبي تامبل فاتحة حرف يولير موي بسم الله الرحمن غمون كفيري تباتو يتامبل اتي سورة البقرة منو كفيري بودم اتي امام السيوطي رحمه الله بودم اتي امنا تيدو بنيو الاتقان موي وحنا لين خمن تاني موي وح يدجي تي سورة البقرة منو تي الف لام ميم من لين خمن تاني فاتحة دفنيو تامبل اتي حرف يو خمني يني اتي حرف يولير yàlla indi ko mu loo mu leer ñëpp comprendre ku ku xool jàng ko comprendre ko yamu ca mu daal di ñëw indiwaat beneen yeneen xaraf yoo xam ni daf ko tàmbalee beneen saar muy suratul baqara ak yeneen saar sax yoo xam ñu ngi ci alquran loolu mu lëntal ko pour lan pour lot loo ñi nga xamante ni ñooy ñooy ñi nga xam ñoom la ñuy tuddee fóore yi borom xam yi ci jamono jooju ci loxal arabiya seen làkk yàlla indi ci loo xam ni dañ ci wedam duñ ko mën a comprendre لو بوكنا تي حكمة بي دنك في ديك يانوتي من ألف لام ميم ميم وكي لمي وحني تو مسلم ديك وح جمل نونا أنا لو كان مسك وح تسل لك ولا ألف لا مرا ولا قاف ولا نون هكذا بعد ما تي تيرا بني وخواتم الحكم وحل الرموز وكشف الكنوز كي خمن تاني كيكو تاليف موي بني وعلي ضد موكو بنده مونه خمل ني ني باري ني وح تي Euh, tàmbali maawu saar yi nga xam dafa ñëw ànd ak ay xaraf yoo xam ni kenn mënu koo firi mu doon xaraf moom ñu wax xuruful yi nga xamante ni yu lënt lañ mu ne loolu borom xam-xam yi wax nañ ci ay wax yu yu yaatu waaye moom li mu ciy wax rek mooy nee na loolu xam-xam bi dëgg-dëgg dañ koy wékk suñ borom subhanahu wa taala moom moo ko xam waaye nag mun nañoo jëriñu ci xaraf yi daje ci baat yooyu mu ne boo nee alif laam nee na moom mën na ci jàpp alif bi mooy allah laam bi di al latif miim bi di al kon da nga naan allahu latifun majid kon yàlla bu nee alif laam miim mën nañ caa déggee ci ahlul ishaara ne mooy mën nañ caa déggee ne allahu ana allahu latiful majid man maay yàlla man maay yàlla mi am ñeewant di ko tedd mën nañ ci dégg loolu nee na nee boo ñëwee ci alif laam ra nee na mën nañ ci déggee moy ana allahul ari man may yàlla muy gis nga xamni dara lëntu ko dara réeru ko alif lam ra mune bo ñeef ci ñewé ci kaf ha ya ayn sad mu juróomi harf suratu Maryam man nañ ci déggé moy ana allahu hakim al alim alalim sadiq moy man may yàlla mu teddemi mi mi nga xamante may gindé gindi maay képp ko jop may ki xereñ ci sama ngor moy ki nga xam moy ki xam lépp dara lëntu ko moy ki dëggu ki nga xamanteni du raté rendez-vous ci juróom-ñaari xaraf yoy alif moy kaf ha ya ayn sad kaf gi di karim ha gi di hadi ha gi di hakim ayn gi di alim sad gi di sadiq muy juróom neena man nañ ci dégg loola mu ne boo ci qaf man nga ci am ishara ci jundu moy innahu alqadir alqahhar moy yàlla moy ki nga xam moy ki moy ki borom katan ونبي موي كي نورا موي كي دوميني كي خامي داراتو بوني تي باتو حرف النون نون والقلم سورة القلم من من نتي ديغ اشارة موي انه انه النور الناصر موي يالا موي كي خاني موي لير كي ديمبالي مام يالا موي لير كي ديمبالي مام نونو لا تنكي حرف يوي تي اشاره لغي نك يينن حرف يوم نيو فاي استنباط يي نيو تي القران توصيل مي تي taas taasin miim mu ngi ci yaasin mu ngi ci sood mu ngi ci ak yeneen xaraf yi nga xam ñu ngi ci biir alquran léegi nag moom daf ko jël daanaka tënk ko ci ay tur la ne ci ishaara lay wax waaw xaqiqatan ci ishaara donte ne xam-xam bi wékk na ko yàlla mais moom dégg am na ci dégg-dégg booba bu ci nekk def ko jël méngale ko ay tur yàlla yoo xam ni ay tagg la koy jël delloo ko borom subhanahu wa taala bu ko defee loolu mooy euh, tàmbarimaaw suratul baqara ci la ñuy taxaw ci baatu alif lam mim inchaa allahu taala bu yàlla mooyee ñu dellu siwaat waat ñu daal di jël continuer saar bi ndax wax nañ tafsir taf ishaari la ak ro'i ñaar yooyu euh, boo ko boole day laaj wax ju bari liñ ci am solo mooy li ñu ciy jàng ñu dégg ko buñ ko comprendre te mën ko jëfe buñ ko jëfe yan yàlla nangul ñu ko insha allah وفقنا الله وإياكم على طاعته برضاه ويسر لنا باليسرى أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته